maam bu so jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram ko ñu ci kaw suuf barke maam si rafal laa ilaaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha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 berne yoo xamante ni yu mucc ayib moom lañ ko fa yéenee màggale incha allah waaw lii moom lim bi buñ doon ko xayma du yomba xayma ndax ba fi may waxee yow ni xéwal yaa ngi ñëw moom murit sëñ Bàmba yi ku ne xam ne ni ñi ni ñu daan war dañu indi rek màggal moom ñun amuloon ko bilan dañuy financé dem rek ba keroog ñu fi jóge waaw. waaw fii ngi ñu fekk ñu toll nii ñu ngi ci di ko amble dañ koy amble maanaam xeeti baax baax yi fi nekk yëpp dañ koy def ci ay sachet fi mu moom mooy fekk ñu koy defar nii pour fas yéene ko servi gan ñi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam. di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan wala ngay dégg sunu kàddu ñu ngi nekk fii ci Porokhane di siyaare ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp rek a màggaru Maam Jaara moom ni ko ab murid di waajale rek noonu lañ koy waajale ñun waa daayira Maam Jaara Bousso bu Touba Mar Sogas njiit le di président Serigne Afé Diaw vice président ba di Barjo Pastef mii di wax ak yow waaj nan ko comme ni daan ko waajee ñëw nan indi nañ tamit ay teraanga yu am solo ndax murit moom fépp foo xam ne rek daje nañ fa danoo war a joxe ay xéwal euh, xéwal yoo xam ne euh, sunu mbokku njaayeen yi des na si man xéwal bu baax ba yëg si daal seen bopp fas nañ yéene daal li fekk ñuy ñëw si sunu dal bii képp koo xam ne dox nga ba si fi lépp loo xam daal nit soxla na ko des na fexe ba jox la loola. daluwaay def na fexit ba jox la atamil ab euh, daluwaay ba xam daal doo am benn gàllankoor fii ci Porokhane daal loolu mooy sunu yéene te loolu moom nañu nekk depuis at yii yëpp maanaam. waaw ba tey nag doomu aadama yi ñëw fii nii te xamuñu ko yàlla dogal ne dañ leen jox ay numéro téléphone rek bu nu wootee rek daan fexe di leen tegtal ñoom ba ñëw si ba ñëw si si dal bi euh, ndaxte am na ay xale yoo xam ne ñu ngi si kër gi. loolu rek mooy seen euh, liggéey heure bu gan wootee rek des na wax fa mu nekk ñu mën dem foofa fekk ko fa indi ko si dal bi. ñu ngi suñu gan yàkkamti ñu ñëw ñu ganale leen ganale bu la nag waaw chaque année nii nañ ko defee rek di dalal ñëpp di ñaanal ñëpp ñëw si jàmm delluwaat tamit si jàmm di xaar ñëpp tamit. noonu fii amul benn jafe-jafe wax dëgg fa yaa amul benn jafe-jafe gan yi amuñu problème amuñu benn jafe-jafe moom. waaw tout temps gi moom mooy loolu moom da ngay ñëw nii jaar nii dem mooy loolu daal mais on gère baax na maam jaarañ tax a jóg. xam naa at mu jot moom lu mat juróomi at mooy nii si suñ màggal waaye heure bu ne ak nañuy ñëwee rek. bañ xëyee jàng nañ si ay quelques kaamil jàng si ay xasaay yëpp jàng nañ ko si moom moom lañ ubbee màggal gi. Maam jaara mi soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaram